soppeeku bàyyi la tenc. kakatar la wuy fi doon wax sànq kakatar la moom daa far ci kii. Ah, moo tax may laaj sama yeneen invité yi. xamul dama far ak moom. soxna si vendredi bi am na. <laughs> ba Fane la am naa ba Fane la ah, Papa Ndiaye tey ci TikTok bi nga dugg de. tey ci TikTok bi laa dugg. Mara waaw mu ngi noonu. Euh, mu doon loo xamante ni aussi euh, gaa yi dañ koy soxla ndax euh, day détendre li nga xamante ni rek comme ni ma la ko waxee ñoo nekk seen bureau wala wàcc rek am li nga xamante ni rek moo di ay stress u àdduna ndax Mara comme ni nga ko waxee rek gis nga ni nga ko gisee nii. Mm-hmm. paa bi gis nga ko nu mu doon. fecceek def ay mbiru ndagam ndagam moom mooy mag génn li nga xamante ni rek mooy stressu àddunaam di fecc di fëlaale def lu ko saf mm-hmm. kon waxatuma ñi nga xamante ne ñoo nekk ci euh, sunu télé sunu mbokk téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo safoo di seetaan euh, ambiance très bien euh, comme le dit l'adage le le sourire est la musique de l'âme mm. reetaan dafa baax dafa baax. waaw ah, ci nit la bokk dafa baax dafa boru ma loolu dama d'accord ni mag xolam la am te kii ngi bëggal xolam. waaw mag xolam la <laughs> Thiaroye elle est très en retard mais ci benn 15 minutes dama lay bàyyi nga nuyoo téléspectateurs yi bëggal leen xam naa tey moom présentation lay doon rek pour sénégalais yi découvrir Astou Bèye après ñu amaat beneen jour boo xamante ni clavier yeeg yëpp ñëwoon na bagage yeeg yooyu dinañ ko yaatal beneen yoon Astou ñu lay dalal. waaw maa ngi nuyu sama yaay. sama papa di leen ñaanal yàlla yàlla bàyyi leen fii. amiin Seydou Mbaye ma àndal boo Mbaye. Mm-hmm. di nuyu itam papa Ndiaye sama. Seydou bu ma nuyu laa la maa ngi nuyu waa Thiaré gépp ah di leen wax xam naa ne moom ñu ngi may bàyyi xel bu baax a baax ndax ñëpp ne nii ñoom ñëpp a ngi seetaan. Mm-hmm. ñoom ñëpp si suba ba tey mën nañ def istati mm-hmm. ndax lan seen rakk seen doom seen xarit moo xew la bi yaa si ñëw bi war a ñëw fii. 7TV bégal leen. très bien waaw eh, li des si temps bi bariwul Pape. fecceel ma ko rek nga bàyyi ko mu mbiiraay rek nga la yaabe <laughs> bu ko defee waa caaro kii waa caaro kii faa nga baax la yedd nga bàyyi tàdd bàyyi jàmbur de talent Astou sénégalais yaa gi lay seetaan noonu naa lay jëfal tuuti saara an lu sumbi ding ko naa sàmba ma jigéen ma rëy sa maam ale ale yaay mariyaan yi njëkke njaay amadi yi njëkke njëkke mariyaan noon naa la jëfal tuuti saaraba yaay booy loo sombi dinka naanu saaraba yaay boo gàcc ngaalaama yaayi gàcc ngaalaama liggéey na yañu doom ñaanu bàyyi gu nangu day jege mbaay sàmba loolu la jég ji rawante non naa ko jëfal tuuti saara ba yaayi loo sumbi dink saara ba léegi léegi jàmbaare yi joni joni jàmbaar jàmbaar saa yu kuruk jur jàmbaar su yi dootul toog Usmaan bey sa baay jëtu njaay la sa yaay aa ah, sawe yaay ji jigéenu mooraa bey nu nakk jëfal tuuti saara baa mama lu sumbi din ko naani saara baa ayayi nu naa lu jëfal tuuti zaraba mama lu sumbi dink naa ni zaraba kondaamaay waalo bañ na ku leen tooñ kaay jiin ma wuy kondaam ku ci am sa yaayi teewu ko di nga gis ko am yaayam tee ko di ko neggi neggee noon naa luy jëfal tuuti tuuti Zaraba mama lu sumbi ni <laughs> mu ko dee jàkk rek. <laughs> ah mais ah, li lu mu lu mu woy dafa neex. comme ni ma la doon waxee démb rek mbirum yaay dafa doy waar noo ko woyee day. yow moom da bëgg yaay yow da bëgg ay woy yaay yow. <laughs> sama yaay sama xarit la. da ngeen di dóor rek da ngeen di dóor nag papa tamit. ci eh, leen moo eh, bu ma jaxaseeg sama papa bu ma jaxaseeg sama papa ah non non non. astu moom itam gis naa loolu moom moom dafa bëgg yaayam la preuve ci yu bari yu ma ko yu ma ko seetaan. Mhm. ci ci ci woy woowu lay tijjee. du am temps na ngir waxtaan seen complicité ak yooyu dama lay bàyyi nga woyaat waaw ah, dama lay nga woyaat astu ah, du ma woy si gëm. Alassane Séni cey ko dundooy limaamu taalibe Sëriif Useynu Laay duma lay wey noonu nga njaanjem baak tabara njaanjem ba maam Farba Yaasin Njaal ganjul ganjul bey Miss Diop duma tay di lay jiin miisooy mama nga bokkal ndeeg baay Siri Zakariya miir géy la ni wooyee sa yaay taali bàyyi laay alasaan ak seeni cëy ko dundooy li maa mu ne bañu leen maay damandi gën gundu seen tobuntu kër ma jaare pot ba kon waxal ak sa yaay booy sa yaay di dër yow miis Jóob waxal ak sa yaay booy sa yaay di la dóore way naa la bàkk naa la alaaji Ousmane bi sa baay Matar bi doomu yaay Moodu Wàdd doomu yaay Asan bi du mataay di la wuy yaay booy sa yaay di la duure gàcc nga la ma du mataay di liggéeyu ndey añub duum ñaanu baay gu nangu lay jég ji rawante waa Sen TV yéen rek laay topp topp ma keneen ku dul yow bañ na ko yoon yi ma waroon a aw yëpp dagg na kon waxal ak sa yaay yow Papa Ndiaye sa yaay di dalay baab. a baab sama. da ngaa Asubé. waaw ah, géwél la Asubé doomu géwél nga. waaw doy waar. géwél laa. waaw dégg nga li wax ci ay maam. très bien. waaw ah, yow tamit nag ku dugg ci maam li maam ba ba ba ba dugg fa génnaat ni te juumoo. Hmm. xamal ni géwél la de xam na li muy def de moom cat da koo teel a topp tànn na kay cat. <laughs> yaay. bu ko ba baat ba ma waaw waaw bagage yi tege. vraiment dàq sama yeneen invité yi rek may ko benn mardi. Ah. waaye 11 dara fi fekk de. wu yaay wu yaay kii boo ko invité waale fi lay <laughs> Papis Mbaye man yow laa bëgg Papis yow yaa baax Sénégalais yaa ngi leen di yar. jërëjëf. kii moom la waaw. waaw ma fan nga jàngee lii da doon ci yaay wala lan la. ah mère Demba waaw sama yaay day way. yaayam day way. ah macha allah. parce que dama laa fekk foofu léegi avant ngay dugg napp la ne la sans clavier di nga ne ma yow kon xamoo ma voilà ma xam ni ndaanaan. ragalul fi mu jëm. non ragaluma. am non amaguma single na ah, Mara. dafa war a am single waaw ñu wutal ko dafa war a am single en tout mi ngi mi ngi woy di neex téléspectateurs yi ñu ngi ñuy topp comme ni nga ko waxee waa Caaroy gépp ñu ngi ñuy seetaan euh, léegi-léegi Papa Ndiaye mi ngi dugg yow ci carrière bi temps bi moo ñu ko mayul pour ñu yaatal ko. Mhm. Euh, mais man am na lu ma jot a dégg ci moom as tuut ci jaar-jaaram ci ay mbapat ak ay làmb ak ay simb ak yu demee su ma juumul sax dégg naa ci nga njëkka a waaye booba nii nga tool lu ndaw. tànk laa waaw. waaw su mbapat laa njëkkee de mbapat. Mhm. Euh, Max Mbargane fa ma sama yaay daan yóbbu. Mhm. jour bi ndongoloo indee sonoreem bu mag boobu ka magam ji joxoon. Mhm. man maa ko aaw te boobu maa ngi sama suuf tànge yaay yi toog muuru ngir bañ ñu gis ma ak li ma doon xale. mu yëkkati ngeen jëmbaag wala Mata Ndiaye boobu sama ñëw yaay doonoo sool sama yaay jox ma bi muur ma may aaw. nga toog ci diggante tànk ñu muur. muur ma nii may aaw ndax nee na day bañ ma génn waaye ndongoloo dane kii aaw nan ma jox. génneel leen ma ko ñu génn mu yàlla ko yàlla xaaree. man man góob li bi ndongo loo yow lan way ba nga aw ma xool ko ah, ba xam. ngañ dem baaguli ma ca njaay guy gëlis naay ngañ dem ma yaay waali njaay ah na ma daa nekk way atu yaay ah tureer kuy doonu ma sàmba jeey guy galis na mu ne roy guy gàkku ca mësa béréem ñu daan laay ndeysaan naa leen bu leen bëree gaañi daanu c'est confirmé mardi <laughs> mardi c'est confirmé loolu moo mënta ñàkk moom. ah ah ah, ah yow loo wax waaw xam ah? ñu gën ko préparé. kii ku ko a teg suñu question ay mbir. que doon nekk si fii. caare dafa sori waa caare dañ ko war a jàppale. ñoom monsieur le maire mardi. monsieur le maire maa ngi lay ba seen maire bi nu mu dem fa maa la boole moom na na ci jàpp ak waa Thiaroye mhm. artiste dañ koy jàppale dañuy seetaan artistes yi rek mhm. surtout bu amee bés yu mel nii ah, jëm ci ah day laaj ñu jàpp teel a jóg waaw autorité yi joxe transport jàppale ko wala ñu yónnee oto mu jël si la mardi c'est confirmé c'est confirmé <laughs> c'est en direct <laughs> y a des engagements yooyu. Asi bu fekkee am nga benn question pour euh, Astou Beye. Euh, waaw xanaa ñu bàyyi ba mardi rek parce que fu toll nii comme temps bi dañoo xocc euh, Mara. Mm-hmm. nañu bàyyi ba mardi incha allah comme ça ñu gën ko préparer. parce que vraiment am na question yu bëri yoo xamante ne bëggoon ko xam ci yow. Mm-hmm. waaw fi nga fi nga fi nga jóge ba fi nga àgg tey. Mm-hmm. ak lan mooy kan mooy sa idole. ak yeneen ak yeneen yoo xamante carrière bi fan nga ci toll yaa ngi wàcc single album ay soirée ak itam boo amee loo xamante ni moo la manqué euh, message booy lancé lan lay doon. waaw man moom li ma manqué chaque jour ma wax ko mooy ñàkk ñu nu jàppale. Mhm. ñun waa Caaroy. danoo ñànk ñàkk ñu nu jàppale. kon li may wax tout le temps rek mën na leen fi na nii ñun ñuy way ku mel ni Baara sama rakk. Mhm. mu may dégg ak ma Ndiaye. Mhm. mais dama ne leen bu fekkoon ñu ngi Pikine wala Géejawaay. kenn waxatu ko. dëgg la kon waa waa Caaroy ma mbokk ab lébu lébu dafa doon dëkk bu laaxu dafa doon dëkk bu laaxu déjà waaw très bien mais actuellement lan mooy projet yi projet yi moom ñu ngi si kawam waaw hmm. ñu ngi tëgg ay soirée j'ai jàkkaarloo yi hmm. waaw yaa ngi jàkkaarloo yi waaw très bien te ñu ngeeg yeneen ak yeneen macha allah hmm. mais mais mais mais Thiaré lu mu laaxu laaxu euh, papa Ismaël Lo da ko wax artiste bi déw la bu feeñalee boppam rek feeñ yàlla def na na nag kon biddee boobu dina fenk ndax man maa ngi jéem a feeñal sama bopp kon kii moo dégg sama damaa bëgg nga dugg ci studio yi mm-hmm. woo ñi nga war a woo jël sa dàll sol ko mm-hmm. seeti bonne volonté yi ñu ci war a jàpp waaw su ma la woowee nag yow Papa Ndiaye non man man man du ma ñëw man moom dèjà bis ni ki tey la si confirmé maat te kaay ma déela ci benn affaire sax bu tax nga gën cee sawar sa digganteeg yàlla boobu ko dama leen neexal de mënumaa ah. naa leen yéen jëw ngeen ma dégg naa leen non non la ma doon <laughs> sama leeroo. woo. bu jigéen bi ko loolu la ma doon wax ne moom. way moom du ko mës a neex. man sax am naa lu ma la war a laaj. loo ma war a laaj. célibataire gi dëgg la. non <laughs> dafa lay laaj rek. dëgg la kay. dafa dafa la fii sa numéro. dégg nga dégg nga en direct dégg nga. ah te yow diinaa la doo bàyyi ba génn li jënd sa bopp. mais déedéet doxaan en direct. doxaan en direct. waaw da nga koy wax say condition noo koy jàppale. jaaree laay góor. da nga koy wax say condition. tey taaree laay reeree. fii riir ba am pomme de terre. ak soos ak mayonnaise. conditions yi lan la noo koy jàppale ah. conditions yi. xam na mardi. ok très bien Asubé euh, suñu waaja suñu xarit ba jantal Mara lañ koy wax kooku mooy saltige bu mag bi. Mm-hmm. Demba Senghor am na bagage yu doy waar. Mm-hmm. yu mu créé yu mu indi. waaye ñu ñaar lay woo. ñu toog ca kër ga. wan ko mbooloo mi. Mm-hmm. wan ko àdduna ndax ñun la am. di leen wax ne nag ñu ngi leen di pareel affaire yu garaaw incha allah nag suba. am nañ benn gaañ bi jógee Amérique mm. moom dafa dawoon waaw benn waaw benn gaañ bu tudd Dame <laughs> waaw dafa dawoon dem Amérique suba moom la indi incha allah lundi nag am naa rak mu jàmm gën waaye mardi mm. ah <laughs> moo fitir femme mooy ma femme waaw il venir mardi incha allah bu soobee yàlla Demba Senghor ñu koy nuyu bu baax xam naa ne moom du ñàkk Papa Ndiaye yooyu mu indi sama kaaraange geeg sama doole faaw ñu affiché ko fii ci écran bi nag Demba Senghor loolu mënta ñàkk ah, Asi Euh, waaw incha allah laataa loolu euh, Mara danga may may rek ma remercier sama belle sœur yi nga xamante ni tey ñoo jaar fi ma sol yëpp euh, ki nga xamante ne moo di Mia Glamour euh, boutique am mu ngi nekk foofu ca euh, Yoff moo ma solal li ma sol ba ci suuf ba ci dàll yi accessoires yi aussi moo ma ko solal numéro mu ngi nekk 77 406 58 57 ci bopp bi Boyti Kestel Louloute ko nga xamante ni kenn la ci man moom it mu ngi nekk foofa ca Liberté 6 extension numéro moo ngi nekk 77 077 23 62 donc mu ngi noonu ñu joxante rendez-vous demain incha allah ci yeneen rubrique kon sa xarit yi commencé nañ jot. bu baax ñun tamit suñu nit dinañ jóg. dinañ ñëw suba ak jàmm dañuy dellu incha allah euh, Dame Sène la ñuy invité moom la dalal à de 16h téléspectateurs yi Scott Show équipe de production bi yëpp Pape ci son bi euh, Pape Maguette ci réalisation bi Papis Mbaye ci production bi asubéy ci une minute nga tàggatoo remercier ñi nga bëgg a mayaat ma une minute boo xam ne da ngay rek jooyal ma dara mënta ñàkk. xaj <laughs> adduna ku yeblu sa baay barke wàcc la du ngóoray bàyyi fërëy wuy doom yaay àdduna ku yeblu sa baay barke wàcc la móor beey du ngóoray fërëy bàyyi dund loolu te nga yàgg fi lool bàyyi mati cuun beey bàyyi xadi njaay ak mataar bàyyi asuñan bey ak mbay juuf ah, doom yaay àdduna ku yeblu sa baay barke wàcc la du ngóor a bàyyi dundal waa sant yàlla bu baax maa ngi sant yàlla ndax xëy di gis say waajur rek dafa neex te man yàlla daa def boo ma fekkoon ak sama yaay ñu toog danga naa ay seex lan ndax dunoo nduroo doo xam kan moo mag sax hmm. maase dañuy bére sam papa waxi noppi. Mhm. dama leen yàlla gudd fan ak wér. Mhm. ñaanal waa caare yi wax ñu gën a jàpp. Mhm. baax di ñaanal Seydou mi nga xamante ni lépp <laughs> la Seydou dama koy ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm ak Cheikh Sarr sama xarit sama góor ñaanal boo mbay gis nga boroom clavier boobu sama góor tamit lu mu deful lu ne baaxul barke Seydina Mohamed. mardi dina leer mardi day ñëw incha allah. jaajëf Asubey merci beaucoup. à la production uh-huh. dundal lu bari sama doom de sama genn wàlla doom yaay kinandooy dundaleen lu bëri kinandooy loo dund doyul doom yaay binte caw. mais pare neex na. bëgg nga répété waat mar balaa mar. incha ba maar dee jàmm. <laughs>